Ibrahima Ndiaye mi fi nekkoon am ministre ak Serigne Atou Diagne mi fi mujj a faatu te jiite woon kuréel gii di Hizbut Tarqiyyah Cheikh Ngaïdo Ba maire bu Dalifort Idrissa Diallo ak général Mamadou Niang mi nekkoon ci dialogue politique beek directeur général bu compagnie sénégalaise sucrière di André Froissart ñii ñëpp ñoo ngi faatu ci woppi coronavirus waaye des na yeneen kilifa yoo xam ne ñoo ngi ci biir journal bi yéen kaay gi tamit xëy na ci ñi nga xam ne ay kilifa nga xam ne mooy entreprise yi ñoom yëg nañ ko bu baax a baax yéenekaay gi de la Tribune nee na woppi coronavirus maa ngi gën a law ci Sénégal te ñi nga xam ne wopp ji ma ngi leen di tëral bëri na loola yéenekaay gi de la Tribune nee na woppi ma ngi gën di law ci réewum Sénégal te ñi nga xam ne wopp ji ma ngi leen di faat bëri na lool waaye nag li nga xam ne bokk na ci li ko waral mooy ci Sénégal li ñu nemmeeku mooy céet yi ak ngént yi ak dëj yi ba léegi ma ngi am te foofee wopp ji mën na faa jaare gën a law leneen loo xamante ni nemmeeku nañ ko mooy ay faux ndax am na ñuy ñëw ci aéroport international national Blaise te seen test du baax yéen a kaay gi du source a xëy di ko dëggal nee na faux test yi bëri na loola ndax mbir la moo xamante ni mu naqaree vérifier la yéen a kaay gi daan na xëy nee na fukki fan ci weeru décembre atum 2020 jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2021 lu toll si ñaari téeméer ak fanweer ci ay nit ñàkk nañu seen bakkan ci woppi coronavirus yéen a kaay gii di Vox Populi xëy di ko leeral nee na semaine bii nga xam ne moom la ñu génn lu toll si juróom benn fukk ci nit faatu nañu ci bu dee nag ci week lu toll ci fukk ak ñeent ñeent ñàkk ñu seen bakkan ci woppi coronavirus yéen a kaay gi ne en li nga xam ne mooy xeeñ neexul la njaw ma ngay wóoy di desu xambin lay raam sa ñag ba la fa amee kër du baax yéen a kaay gi da la soloy wax ci cinquante-huitième sommet CEDEAO bi nga xam ne doon nañu ko amal njiitu réew yi ñoom nag li ñuy sàkko mooy li nga xam ne mooy vaccin yi maanaam ñëpp jot si yéen a kaay gi du l'observateur xëy na ci couvre-feu bi nga xam ne moom la ñu def région de Dakar ak région de Thiès li nga xam ne mooy constat bi li ñu si nemmeeku mooy couvre-feu bi amul njariñ ndax tey jii la wàllu a aay mbir mi dafa gën a wulee ñaay ci ndakaaru ak ci Thiès yéen a kaay gi di exclusif nee na woppi coronavirus ñi nga xam ne ñooy maire yi en tout cas jot nañu si seen wàll ndax maire yi nga xam ne faatu nañu ci coronavirus bëri na lool ndax lu toll ci fukk ak juróom ci ay mairie yoo xam ne ñàkk nañu seen maire yéen a kaay gii di réew mi quotidien xëy di ñu tàggee Jean Meissa Diop nekkoon ab journaliste boo xam ne ràññoo ko woon loola waaye mu nekkoon ku mën a bind ku sérieux texte yi bëri na ay journaliste yoo xam ne ci ay loxoom la ñu jaar maanaam moo leen formé yéen gii di nee na presse Sénégal ñàkk na ki nga xam ne moo leen doon gindi yéen kaay gii di Vox Populi xëy na ca mbuurkat ak kër ya nga xam ne ñoo ngi ko fa doon daaneel di ko fa tocc ñi nga xam ne ñooy njaboot ya nga xam ne ñoo dëkkoon ci kër yooyee maanaam njàqare ak tiis ak jaaxle tumuranke gu rëy maanaam moo leen dal yéen kaay gi ne na rongañ tuuru na waaye grenade lacrymogène yi tamit doon na fa jaaba jonge journal bi ne lu jëm ci wàllum daane kër yooyee jamono ji teg nañ ko ci suufa yéen kaay gi di Sud Quotidien ñu yóbbu ñu ca diwaanu Casamance nee na foofee ca àll ba lépp loo xam ne jëm na ci wàllum daggu garab bàyyi woon nañ ko jamono ji mbir ma commencé waat nañ ko te nag àll ba nga xam ne fa la ñuy dagge bant yi àll la boo xam ne bu doy waar la bu dangereux ndax nit ñi nga xam ne ñoo fa nekk dañoo ngàndaa yu ba dëgër yéen a kaay gii di libération nee na drogue bi nga xam ne jàppoon nañ ko Singapour mu toll ci six cent soixante-quinze kilos yéen a kaay gi nee na am na kenn ku ca bokkoon koo xam ne teg nañu ko loxo ci diiwaanu Ndakaaru Alioune Tine ñu xëy fekk ko ci yéen a kaay gi muy sàkku ab loi loi boo xam ne dafay aar ñi nga xam ne ñooy ak activistes yi ak lanceur d'alerte yi yéen a kaay gii di réew mi ko dëjee ñu xëy fekk fa député Aji Mbergane Kanouté nee moom candidat la ci mairie bu Kaolack yéen a kaay Dakar Times nee na Aly Ngouille Ndiaye Mohamed Boun Abdallah ak Amadou Ba ci ay xibaar dinañu dellu si waat ci gouvernement bi Augustin Senghor mi nga xam ne moo bëgg a jiite kuréel gii di CAF moom nee na mooy favori te jàpp na ne mooy gagné li nga xam ne a moom la fas yéenee def bu ñu ko dénkee CAF